mi ngi tudd histoire bu am solo loo xam ni suñu borom tabaraka wa taala bëgg gum bëgg xeetu rasulillah sallallahu alayhi wa moo tax mooy di histoire bi jox ko ne jiitu na yonent bi ci saayir yi mu doon jàng nii waaye ni mu bëgg nu mel ni moom suñ borom bi rasul ñëwee am ci événement yoo xam ne ëpp na mille ans avant rasulullah genn góor def ko am ndam ci li yalla bëgg ci mom amna ci histoire yo xamni ëpp na jitt na yent bi 2000 ans amna ci yo xamni jitt na yent wax 10000 ans amna ci yo xamni boko natone milliard d'années sax matna la ta rasul alayhi salatu wasalaam ku ci nek da nga prouver ses preuves ci ñooñu suñ borom jël sa histoire épingle yëpp jox rasulullah sallallahu alayhi wa ni ko fexeel ba sa waa kër yi liir ko ku man def ni ñii ma defal la ñi ma def ni ma defal ma def la nu mel ni ma defal ñii wax ju doy waar wala alxuraan dafa yéeme xam nga boo seetee ci allasina amanu te ñoom walam yalbisu imanuhum bisulmin loolu yéeme na ñi nga xam ne dañu gëm yàlla defe naa ñun ñii yépp loolu lañu wax ak ñeneen ñu dul ñun ko ci ne gëmoo yàlla mu mer mais est ce que gëm gi sël moo woo rek dafa ko bu sol ko boo neex def ñun mën nañ ko bañ a xam ñun ku nekk ki nga dëndal di sëgg di sigi gis naa ko mu jul rek ngay wax mais est ce que ki nga xam ni bu bu bu ba sëlmal bu génnee tas dëkk bi mun loo xam yàlla ni am na ñoo xam dañ ni gëm nañu ma waaye gëm gin ma gëm defuñu ko mbub mu ñuy sol su naafile jeexee ba dem seen kër ñu suñu mbub ma sensé te ni dugg ci dëkk bi nee ne ne bokkul imanuhum <laughs> walam yalbisoo imanuhum bisulm borom bee wax de rasulullah la toog di waxtaan ak moom ni ko ulaayika ñii nga xam ni defuñu loolu lahumul am ñooy ñi nga xam ne am naa ci ñoom confiance parce que waruñu ma waxum muxtadun ku ñu teg la ca yoon wa ñooñu laa bëgg laa la bëgg a wax yow Muhammad Rasulullah nga yóbbaale ko ne ko nag foog nga am dossier bi foog nga dem ci góor gu ñu wax Ibrahim mu jox la ko loolu la wax wa tilka hujjatuna aataynaaha Ibrahim wa tabbih millata ibrahima anifa. demal ci yonte ibrahim nga def ko muy sa reference ñi ma la bëgg wax seen dossier mi ngi ci mom nga jël ko bo demé nga yobbu dina la wax nak li def ba ba liñ am ñu am ko ba ni mel lu melni bañ ko defé ba pare ku ci nekk man ma jëlal man sama bop man yalla sa borom sa décoration bi nga wara tak takk ma dem ba tak ko ci mbagu kooku si ay way yalla ñu bokk ci ñoon hein sëñ bi yalla borom bay wax de li yonti waxu ko ibrahim waxu ko suñ borom nee ku ci ne ci ñoon maa la décorer sama bopp um, tag la wax sa jaroré ku toll ni yàlla suñ borom magayam réeyam dégg naa fii mu wax ni laa yudrikuhul absaar waaye waxuwa waaw yudrikul absaar yéen mun leen fexe ba seen détecteurs yi yéen gars yi di filmer nii xanaa sëñ Saali woo ko man man ngaa caméra yàlla ba jàpp ko ah moom nag nee na appareil mi ngi leen di jàpp nii loolu man la laa ab absaar benn bët duma teg bët parce que su su su ñëwoon ci jataay bi ñëpp bàyyi ak waxtaan wi di ko xuju moom kon jataay bi day des bu jógee dem jataay bi yàqu su ñu moo nga dem gi moo tax day ñëw jël sees fii ne mi ngi fii jël seesam billaay yàllaa ngi toog mu ci jataay bi moo tax bi bàyyi seex naan nañ fay portaabal yi ñom dañuy yëgul ni suñu borom ci biir sàppe si yàlla xam nako hein ñom yëguñu ni suñu borom manam digënté ku né ak morom né rang gi guddé mo fa taxaw yek ñin ñi ñi ñi jaxase julli ci fi na xam nako bay cheikh da xam dara mom na fay di portable da dig rek moom dëggantiwut daa xam portable bi sone ci poosu kan la ne borom bi tabaaraka wa taala moo xam ba xam bi imaam di tare sama alxuraan bi neex ji ki ki doon ruube waaw waa ji lu mu ma yàbbee ba ñuy ba ñuy wax sama tur bi mu maanaam beneen waay di ko woo xam nga lu ma yéem kin ni nañ fayit portable mu bañ est-ce que ba portable bi dee sore ci biir julli gi day wuyu wala du wuyu man maa ngi laaj rek ko waaju ndax day wuyum déet comme yow doo wuyu waaw ah, loo ci taale baal ban noppi nga taal wuyu su fekkonte ni kay bu tàkkee nga wuyu sax wuyul maanaam taalal moo tax eh, suñu góor gi yàlla na ko yàlla yokku wér ndeysaan borom bi sax dégg na la waaye ponkal mi la gën a ëpp xalaat xam na ki doon ruube ci biir julli ci dégg ko bu ko defee mu ni yont yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam référence yii ma lay wax nga xam ne ku ci ne maa la décorel sama bopp te nett li histoire bi mooy bëgg nun ku ne ñee ñooñu ku ne ñee ñooñu ba bëgg a mel ni moom ndax yàlla wax la li wax kooku dañ am benn sëriñ ñun bu ñu amoon muy wax ni law jixtu xab la nusulil kitaab في سنغال لا كو لوجدوا فيه واذكر في كتابي فلانا كثيرا ها ني دك توبا ني كاي خادم رسول من واي بي لول امول بدل ان سالك جوي رك اختصاص الحرس لخلمي والله اذا كتبت سنتوا كو واخ مني suma ma alquran nga xam dama ñew def sama histoire ba passé comme ni ñi defee seen liggéey ba jall alquran ñu jël seen tour roof ko ci biir alquran seigne touba ne suma fi jiitoon alquran bu len yalla lim sama tour wat ci digg ba waaw waskur fi kitab fulan kasiran ne kon di ngeen deg alquran di ma rek duma joobe rek ngir sama jëf dañ ñom dañ ma jitu way mënu ñuma sëñ Tuubaa la wax sëñ Tuubaa ko wax parce que li defari rëy moo bi mu ko liiree rek la ni dañ ma jitu waaye ni len yalla tuddé su jitu alquran téré bi mat mukk te fekku leen ci ahmadu bamba ci bir waaw est que loolu daa jombe yow fus rek a fi ne comme sama classe gi fas yéene fii te wu la wax xaral rekk ak lekk ak naan képp moo ma ko xañ kat waaye moom fi ni nii ñi ko xam ñi ko miin xam na doonum njool te réyul woon lool te atam yëpp li ngay dégg-dégg soixante-quinze ans képp la fi am waaye fexe na ba ni su ma fi su ma fi yiiroon alxuraan bokk bima bi fi alquran jito dina def effort ba nga xamni ni jéego bu arafu mo bind ses bi yalla tok dana keur keuri ba suñu borom ni ko yëngal sama ses bi malaaka yépp sagan, ma yëngutu di arasug yalla gi kan mo koy baaje sëñ Tuubaa ni doon bind rek arafi di di baaje sesu yalla bi mako wax de wa ñi tax mu ni suma fi jitu won alquran melni moy ñi ma ko wax jappal gaaw 17 personnes lañu 17 personnes ak ñoo baax ak ñoo yéeme ak ñooy jàmbaar hein te kat deru nit képp lañ yoron di sentir metti di sentir banex waye ñu jënd seen naqar mbigum yalla fop fop banexu aduna jënd ko ngërëm suñu borom rasulaay ni tekk ni ko ñii de soxla naa leen xam wax leen sama gaa yi mu ne ko wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahim ala xawmi góor gu ñu wax ibrahim jàmbaar la ci la bokk waaye ñëpp ci moom lañ sosoo am na ci nag ñoo xam ni ñoo jiitu ibrahim dina ko wax ci biir yàlla ni ñooñu narfaxu yëkkati na darajaatin seeni daraja seeni garaat ku ne maa la décoreel sama bopp ndax sa jëf man na saaku ni ma neexee nag laa ko defee parce que dañ maa defal li ma neex ma beral leen cër boo xam ne ku melut ni ñoom doo ko mës a am tey ëllëg nag inna rabbaka Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne sa borom mi wax ak yow hakim maay àtte ëllëg kenn du àtte man mi àtte maa la wax lii ah halim te duma juum ba jaawale ji fi imam taale mii ak naay ak noddukatam bii di Pape Dieng ku ne dama lay natt heure bi ngay déparé sa kër di yeete si ñëpp di nelaw suñ borom mi wax yow est que yow nekkata yow jaral naa la lii ci guddi gi bi imaam taxawee di naafila ñëpp di nelaw suñ borom mi ngi lay yër ne yow jaral naa la lii inna rabbaka hakimun halim may attee kenn mënu ma koromp amul avocat bu ñemee sol rob bu ñuul taxaw naan ma diw te du dëgg amul ko kan nga yaakaar rasulaay ñimiwu ko sëñ Tuubaa keneen waxuma waxi noppi dëgg rekk dëgg jooju gaa yi wax kanam yalla inna rabbaka hakimun halim hmm? Acha. rasulullah di pat pati ne ko baaxee ma len waye ma ngi lay ñaan kon nopi ci mom wax ma lu tax am am ko ma jox sama gaay muni wa wahabna lahu ishaqa kenn ngoog de ishaqa domi yonent yalla ibrahima la xam nga lu soiram borom bi ne la ko fi ci biir dafa jub jub yaayam baaxam egg na ci mu takkal bayam jabar demal charan gele nga set ku ci takkal sa sa borom ko ku ci takkal sa borom ko wujju baxam di nga mel yaay ishaqam wujjeeg sa ba sa wujju de moo gën a bari def sa wujju sa jawrin xam ni sama borom kër bii mi ngi bëgg a aase ñaataat 120 ans defe na te amut doom 125 ans te musul am doom ngeen ko sëñ bi doom de baax na ci kër te maag yow yëg yëg naa ni suñu trompe yi suñu organes yi doom yomb yomb ci am naa benn bon jëlal sama bon bii nga denc ko comme soxna pour nga mën ci am tu tànk ndax doom dafay eggale mission wu baayam jigéen de def na ko xoolal loolu en l'âge de quatre-vingts ans mère bi paa bi am cent vingt ans cent vingt-cinq ans kenn du ci am doom maire bi moo proposé paa bi jëlal sama mbindaan mi du mbindaanu mbindaan yii de sama jaam laa wax jaam xam nga mbindaan moom da koy fay mu liggéey fayoo ko mu daw jaam na koo moom la mu ne ko goreel naa ko moom sama jaam bi tey maa moom gor la may naa la ko yow sama sama sama sëriñ moo jur maire boobu moo jur Isxaq mi liggéeyu liggéeyu ndey doom aywa ak kan wa yaxuuba am na waa ju wax yaxuub ci nombre de sept personnes yi la bokk ñaar rek laa la wax yaxuuba bii yonent la mooy papa yi Suleymaan astaghfirullah Yusufa Yusufa moo jur Yusufa papam la buñ la ko laaje référence pour nga xam ko neel moy baye yusuf borom bi neena sama sama waaye akay li tax mu doon wayam ni mu yare doom joju ba melni mel ni la ko wax ci kanamam suñ borom neena sumay lim samay xarit momet neel sa gaay koku samay xarit la gis nga digante ishaq momet ni ko waaw mu ni ko ak yahu mu ni ko kullan ñoom ñaar ku mën a doon haday naa ku juba ngi noonu yàlla nañu yàlla may jub dama rëdd yoon ni fii la ñu nangu ni foofu la topp ko ba arrivé te jàdd nu yoon wa waxal sa gaa yi ne leen ku mën a mel ni ñooñu na ko na ko seet hmm? Mohamed Bind mu ne ko am na ku ñuy wax nuuxaa yont yàlla nooxu moo tax yëf yéeme moom sax day xaday naa ku jub la min xablu foofu la problème bi nekk waaw avant muy takk soxna bay am doom xocc la def ci yoon boo gisee min xablu ji li ci indi problème mooy bi mu takkee jabar ba am doom doom ja trahir ko waaye moom teewul lam ne mu ne ca di ko njabootam soxna seeg doom ji àndee kompaloo ko mais mom ci kër gi di to sa papa mi lélé sa tante ñom wax ko waaw sa papa mi nga xam jox fi lu yaaxal yaaxal rek tankam yu dëng dépass ba dugg na fi genn na fi mère yi fexé ba jaxase doom jeeg baay bi influence bobu day japp dom jom japp sa papa dal normalu day muju bédd ko fété ak yaay benn paan dom ju and ak yaayam wacc bayam mo golo gu yew ci tatu garab ñu nuru golo buñ ko yew ci tatu garab man ci cëppilu ba son way du jote xop bu mu tepp tepp bu mu téye ko dégg ko bu baax dom bu yaayam contre papa golo gu nu yeb ci taatu garab la lu mu cëppeelu cirpi cirpi mën naa daw wër garab gi nag waaye yëg jot xob yi moom du ko def moo tax bari na bu yaay gàllankooree doomam kon wa nuuhun haday baax la nag comme départ waaye même biñ ko trahi trahisee trahiré te mooy sahawi ilal jabal sahawi ilal jabali papam woote ne mii yu manqué cinquante ans def na ko ci kaw suuf junniy at noonu dund na ko di woote pour ñu jaamu yàlla ubudu rabbakum wala tusriku bihi shay'an ñëpp d'accord moog yaayam ñu ñu lànk moo tax am ko ci sa kër yow Muhammad wala imam du gàcce di digle gën a baax ci dëkk bi te sa soxna wala sa doom wan la ginnaaw du gàcce yow fexe ba bul jàdd rek loolu la def ñu xëy xëy bañ waaye yàlla nee na biñ ko waree ginaaw teewul mu continuer ak coonam ba ba dagg gaalam nga ba dugg ca géej ga ba téere mustari ki ku topp leen man la topp jëndewuma doomam jëndewuma jabaram wax naa la ñett defe naa de isxaq yaxuba ak nuuha mu ne wamin suriyit yi am na nag ci sëti nooxin du doom ji de du jabar ji de mais ñooñ ñañ juraat ña ca toppaat am na ñu ñëw nag tegu ci raay bi say naa sallallahu alayhi wasallam ni ko borom bi ñoo ñan la mu ne ko am na ku ñu wax daawuda seet moo jur yonte yàlla suleymaan moom tamit daawuda mooy bàyyi suleymaan yaaxuba mooy bàyyi su yusufa daawuda moom de jàmbaar la takk na xare ba tàyyi ngir man ba not waa réewam ci nañ ma jaamu ku ko defut mu dal ci sa kaw yaa xam mer génn yaa xam mer toog foo mu fekk la fa alxuraan tudd na ko lu bari la la la la guerre de dana jaliyaat la ko français yi waxee xaw ma goliath noonu la ko tuddee muy muy muy jaaloota ak nu taaloota mooy histoire bu rëy boobu ba ba ci bir amna ben secret waxata la daawuda jaaloote mom mi lañuy wax daawuda mi mo ray jaaloote mi nga xamne mo fi daan wote ni ak yalla yalla ko ngor jigen la mom mi moko fat moko fat yalla takal ko garab mu wa sulayman amna am ñuy wax sulayman yentimi ko ko di deg na iswaram mun ko musna yilif te taxul mu bew su tukki suba gi ngelaw lay war dox dox juroom benn weer su ngoonee suy tukki ngelaw ngelaw koy fekk rek yanu ko moo ki gaayam moom mii moo doon wax ak xorondom ya suleyman ba xoronom yi leen ba suleyman passé ndax dañoo am doole moo gaayam dañuy rey moom mii moo yilifoon jinne yi dégg nga ko ma waxoon yàlla ne ko rabbi habli mulkan la yanbaxi li ahadin min innaka antal wahab jox ma dara joo xam ne man du ko am ci kaw suuf mooy suleyman mii fii si fii fii waa israel yi di nungu tey moom mi moo tabax jàkk ji nekk Palestine. Jérusalem waaw ah, Jérusalem Souleymane mee ko tabax fu ca jàkka ja la faatoo ci sànce bi ci sance bi gaa yi liggéey la taxaw di surwaaye sànce yi di gëdd jinne ba yàgg ni këpp ci suuf faatu mission ba dee borom bi ni rasulullah jàppal hmm? kon juróom a ngi noonu diglu liñ def rek di liggéey ba dee ci sànce daawuda moo rey ci gënoon a garaaw ci kaw suuf ngir yàlla mu ne kon am na benn waay bu ñuy wax ayuba nihmal habdu innahu awaab fukki at da paralysé nekk dans le coma mooy li ngeen di tudde AVC te musta weddi yàlla musta yoqal dem na ba saxe sax yi lekk ko ba boo toogee nii ma jàkkaarloog imaam da ngay seen docteur ma ne ci ginnaawam naan damay xool dënd bi yow gis nga xam nga yàllaay rey te yàlla reyu ko bu doo ñun ku sa deret jeex nga dee parce que jàpp nga ni kenn nay rey ku dul yàlla ku sa yàpp jeex nga dee moom amatul yàpp amatul deret ay yax ay faar bu ngeen di seet yenn saa yi ci documentaire yi nit ku du siddi noonu la ayuba meloon dix ans waaw laatam moo dix yi bari woon na alal amoon na mille bëf mille poussins mille ne am na ci junni lépp la yàlla raafal balal ji jeex weddiwut mu teg ko nattu fukki at weddiwut rey ay doomam rey ñëpp ba mu des aaw bi aaw xam xam am xam aaw bi daa gore du daw waaye jabari intérêt yëpp a ko bàyyee dëkk bi ber ko mu ne yàlla rek kay yàlla ko dul yàlla du yàlla boobu ay ba borom bi ni rasulullah jàppal gorongo boy japp goro ni du daw du décourager du reclé hein wa yoba mune ko kan mune ko am na ko ñu wax yusufa borom inni raaitu ihda hasara kawkaba wa samsa wal khamar raaituhum li sajidin an an an an, alas las 12 13 ans mu gënt gis biddiw yi fukk ak ben diko ko sujootal fukki at ak ben mu tedd gu di gënt asaman ci wacc wër wi ñew sujoot jant bi ñew sujoot mu ni fuy ci fajar ni papa dama gënt wër wi biddiw mu ko tejeel sa gémmiñ dom bu ko wax mukk ci sa dom bayyi loolu mbir muy ñew la jamono day ñewi te buñ ko xamé sacrifier la waye xalé la bi genti gi genné manam bimu genné mag yi woo ko doom bàyyi mag yi ne ko yow booy loolu wax sama papa ray bob bi fop dag mburu jox ko naka la ray bob dox ko dag mbur lo sama papa mané dama ko doon wax sama genti gi na nit li genti ga ñu ni ko ah yow ko la sàkkalul pexe xey xey ni papa jox nu ba nak ñu sammi ko góor ni ne kañ ngeen dan sammi mu ne ko yow bëgg mu suur dem ba fenn yusuf ñoon dem góor gi ne ko deet bu leen ko yóbbu ñu ne ko baare rek son rakka yow da ngaa bëgg a dox suñ diggante son rakka ci gën dem ca àll ba pexe mu ne tëral nañ ko nag waxtaan du ko du ko maye waaye bi mu mujj a def mooy nan ko sànni ci teen bi xale boobu fukki at ak benn nga sànni ko ci bën goo xam ne teen buta la ca biir foore ba ñibbi ni papa till ga lekk na ko moom kopp ca teen ba ba ay commerçant yu doon wuti marchandise ñoo fa génne ko jël ko delloo si wuñ ko ndax xamuñu koo jëkk ndax rafetaay bi dem ca biir marché bi ñuy jëndee marchandise jaay ko bi xadri dirham ab dërëm bax sa siniina bax sa siniina loolu tuuti na lool de loolu xanaa su dërëm la sax xanaa lañ ko jaaxee wa ya? wasaruhu bi sama bax sa dirham bax sa sine lañ jaayee xalé bi manam luñ ci am man nañ ko wanteer rek ngir mu sori sun papa waaw ah, nañ mom day nañ naan basar de pour xalé bu fi ñëwati rek mom ñëw nak ni gor gi ak seen tapal ak seen joy tilga ko lek def nañu nak lu ne bu mu tax dara tak ñu ne nañ ko borom bi ni sallallahu alayhi wasallam jappal tur bob ma ko fatte wa Muusa alxuraan tudd na ko lépp ñeenti téeméer yoon ci téere bi moom mu ëpp rasulullaay mi moom ëpp téereem lu ko téere bi tudd ndax affaire yu bari Yuusuf mooy ki waaw ndaw si topp na ko am alal lool mu ni mu ni mu ni mu ni ma mooy yàlla ñu tëj ma ci kaso bi moo ko gënal ci man sans kawar bopp ba ci sans wee loo ci neex defal foo ma woo mu wuy la foo ma yóbbu ma dem. yaay bañ waaw kay. nga xam ne xale bu jigéen bee la ko wax <laughs> yaay bañ. Mamet ne ko jàkk xool kook tin bu kaleere bi ak capp cappal yi mu ci boole ak wiij ga lu kenn xamul sarme ya nga ne ko jàkk ba noppi ni ragal naa yàlla kii daal li may woo nii ak ni mel ba heure bi ma lay wax di sa yaram bépp a ngi tremblé nag ndax soxla ko sa yëgukaay sa conscience ñu la yàlla sa borom nag nga rikkale yaram wi dee nga xam ni lii yomb na ma waaye ragal yàlla tax defuma ko Yuusufa loolu la def suñu borom ne ko comme nii la la toll bind turam ci liste bi ku man na ko def wa Moussa moo dajek ponkal mu réy moom di firaw na 450 sané mu doon ko pouvoir armée bi nag xamuñu nu mu toll ministre rek matal nañu 900 yilif Égypte gépp ak aduna bi comme dajal Daniel la Moussa nekk talibé bu yorul sax jeesi ci biir kërëm wa harun ak rakam ñom ñaar ñi ñu combattre ko yalla japp leen ban tanel ko ci ba roxal sum suñ borom ni yent yalla wet jëlal ñaari gaay yoy kenn mën leena koromp ay sëriñ lañu yo xamni palé mën leena koromp parce que ci palé lañu dekkon malet mën leena koromp dig nañ ko ko de no sa dañ ko le bo bëggee ñu fallé ci nguur gi da nga bayyi li ngay wax mune bëgguma poste député bëgguma poste ministre ñu ne ko ñu jox la malet tant de milliards mu ne bëgguma xaaliss bëgguma ay sato ñu ne ko kon léegi nga noppi mu ne mukk xalaatuma ko yàlla ma wax loo sama classe kii bu leen waaji woowee nga xam fii lay ñëw ni cheikh cun ñoom bàyyi leen di wax hmm? déggoo ko fi li xew nii ci góor jigéen ñi iliman yaa nga ca pale ba de <laughs> yàlla na yàlla dolli xel yàlla na yàlla dolli xel Hmm? bour mom kenn du dugg ci palem ba génn te yóbbaale woo dara da ko jar mosa hmm? nak loolu la lank malet yek post nomination yek lepp la la la gedd ñu tekk ko tëj ko kasso bo daw génn ci dëkk nek ci foré bi di lek am ñax moo rakam borom bi tawar ko taala daari wax ni ko ñu kat mat nañu ndonga daara sëriñu daara ya rasulullah jëlal ma wa kasalika nasil muhsinin xam nga lutax yalla neena nee duñ ma gëna goré dañuy jaay lu rafet dina len fay lu gëna rafet liñ ma defal ñëne né dañuy jup njub ga tax ma jël leen ñi dañoo def lu baax lu baax lay tax ma fay leen dëggal lolu amna ko ñu wax sakaria tudd la ki barki dem mo yar mariama bi juru insa toog na lu yàgg amut doom boo demee ci alquran dafa ne suratu kahfi la bu ngay ñaan yàlla ne ko donte benn njaboot may ma ko ma gis ko ci kaw suuf ni daa xarab bi waaw waaw waaw ni daxan xafiya waaw wa yarisu waaw min al yaqub waaw muy wote ci ci baat baat baat bu woyof mooy ni daxan xafiya boo da boo daa dugg ci biir jàkka ji moom képp quatre heures du matin te lamp yi fay moom cundum kenn dégg waa kay isnadahu rabbahu ni dahan xafiya foofu laa wax dëgg dëggal jooju wax rek mu ne isnadahu mu nga mu ngay woote naan allahuma bijaay ya allah ya rahman ya rahim dégg nga may waxe <laughs> yàlla daal moom pédagogie bi grammaire bi ni ko déggee ni dahan xafiya def ko defu ngistal de parce que deug la te kebe wax dafa deg ndi isnadahu rabbuhu mu ngay wo yalla mom sakariya diko def ci kaddu gu woyof may mag mission bi ma yam ma nek yonent di wote te dundu da am fu mu yem may ma ko xani fu ma jeexale mu tambule fa suñu borom may ko ku wax yahya moy doom hmm moy doom moo tax wa Sakariya baax gi mu baax ba yar Sayyidatuna Maryam mu mën ci am doom ju mel ni Xeesa mu ne mën ko jëlal trop kon ku yarate sa doom ju jigéen ba mën a jur ku baax rek jàngal ko bokk na moom ci guerre la dee moom mii gaa yi ko doon xeex bi mu tafee ci garab gi niip jëlaat inla defaruwaat ci lim ñi fa lañ ko fekk daggate garab ga moo tax ñu ni wén la ba tey foo ko daggee muy naaj ci deret xam nga wén day am lu mel ni ndoxu deret foofu la ko jële wax Isaa mooy yontu yàlla Isaa bii jiite chrétien yi dund na ba génn àdduna xamul bànneexu sëy mission rek topp leen yàlla bàyyi leen mooy mooy yàlla lii la mu sa nekke boko doore du fayu boko xasse du fay te fu mu fekke ñuy xex musna wax ni bala mo yek ni yow talibem nga ben way met bet la door la mbecc ci sa loxon loxu ndey jor neena bo gesto ba gess ci la def demal ba ci mom nga sukk jox ko gos bi mu mbecc la mbecc rom mom dañon ci ndey jor neena su mi sa bubu te seug mu rekkar bu doyele ngan ko merci beaucoup waaw kuy digale sa taalibe di nga xeex yàlla ne demal jël yàlla ne yonte jëlal borom xol bu rafet boobu xoolal lim seede yaayam barki démb inni abdullahi atani al kitaaba wajaxali nabi nabiyan wajaxali mubaraka ayna ma kuntu wa awsani bi salaati wa sakkaati wa barra bi walidati wala bi yasali jabaara wax ju rafet yi ma doon wax ci barki démb moo ko doon wax ci yaay ñu ni jëlal wa Iliyaasa Iliyaas bi mooy kanati waaw wal yasa ab yonent la yàlla nee na sakariya eh, ak yaxya ak hinsa ak Elias quatre personnes yi kullun min as-salihin ak a yàlla ko wax de waxuma ko nee ñu ñu yiw a ngi nii mënoo leen xool ba gis ci ñoom benn débordement du ñu déranger nit du ñu dépenser nit te ñun gurma wuñu ñu seq ak bu ñu jàppee yàlla ko gën a bëgg ñu bàyyi koo yow kunun mina saalihin Mohamed waa kii kii ñii kenn du leen roy ak kan mu ni waa Ismaahila doomu yonte yàlla Ibrahima la Isxaaqa doomu yonte yàlla Ibrahima Ismaahila mii moo waral tabaski tabaski xoolal baat bu rëy bi mu wax waaw dama gént yàlla ni man naa la rey bàyyi beeg ko wax de wax ko sa doom police bu la Mana a jege fa nga yendu ci sama papa dama menacé génne ja génne paaka <laughs> Saliou mi de ku ko wax del nijaayam nel papam nel maamam paaka ba lay yóbbaale ne sama papa ma doon bëgg a jàpp waaw kay wutal ko ëpp fa ay seere nag ñu ne paa bi ba daa mel ni daa wirut mbaa day doroge wu Ismaayil waxul lool de wan nañ ma ni ma naa la rey ku la ko wan yàlla mu ni groupe sukk ci suuf ni ko bu dee yàlla la ko wan lu mu wax lool la te papa loolu jël woon nga may tàggu adduna bi lu ma fi wut lu ma fi def dee ci digalul yàlla sama papa def na ko en tant que jeune loo fi def wa ismahila xam lu ko yàlla faye xool xarit tabaski niñ jox ku rey xarum tabaski moom ci tuyaa ba jëm bi ni muhammadu rasulullah jëlal ma tur boobu hmm? wal ya saxa xaw ma ñaat laa amagul nag xam naa yéen a ngi may topp ba wañunu ko ca bokk de am na ku ñu wax yunus fàttaliwul moom la jën wi lekkoon. mooy seizième waaw waaw waa kay mooy mooy dix-septième bi waaw mooy seizième mooy seizième bi fukk ak juróom-benn Yunus moom la jën wi war noonu te wooteel yàllaa ko ko teg. xare suba xare ngoon waare suba waare guddi waare ngoon ñëpp lànk mun leen tey daal du ma buusee te gëmu leen mbaa mbugalum yàlla wàcc ci yéen jaamu yàlla ba nattu fekk ko ca jaamu ga mu daw dugg ca géej ga ñu sànni ko ca ndox ma jën wa wann ko moom fu la ju toll ni fëpp kurusam nag jublu penku ca biir jën wa laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin laa ilaha illa anta faw na mu ngay sikkar rek gaa jàpp ni jën wa lekk na ko ndekete moom néegu xalwa la ne waaw mu far ko def néegu xalwa benn yoon la waaja waxoon ba ñu ko yóbboo prison mu ne

moom mii nag ku ne mu def ko néegu xalwa di si kaat laa ilaha illa anta fa naadaahu fi sulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin moom mi moo ko doon wax ba léegi ku am problème ci kaw suuf di sikkar tur wi problème boo am di nga ci génn hmm? waa kay wa yunusa ak kan wa luuta xool ko li mu daj ngóor jigéen ji ci mission moom la commencé am nañu ni sax jiitu na ko waaye ci la gën a fi si bokk ba yàlla yónni malaaka yi te fop suuf si féete woon suuf féet la ko kaw ñëpp suuf war na leen histoire bu rëy la barki dem ñu ngi ci wax na mag sëñ xaadim yi sëñ borom di wax ci benn saar ni xeer yi ma sànni woon waa kër yi nduut ba def leen nam nam def waaw nee na xeer yi soriwut suñu borom neena bi mu jëlee xeer yi caw ko gaay ban faatu la jees mu denc wétam di xaar ku ko defat mu jëlal xeer yi ci des day jangul ayé bobu de yalla neena xeer yi wut de hmm? waluuta gis nga diggante ismahila ak waliyasa ak yunus ak lut rasulullah ne yalla ñi luñ def mu ni ko wa kullun fadalna ala alalamin mboolem ñi ma sàkk ci jamm ñi biñ ma jox ñoom la ma kenn joxut ma defal leen jingëneel loo xam ne defaluma ko kenn man dañoo respecte yàlla xoolal loolu dix-sept personnes yaa ngokk yàlla jox ko rasulaay ne ku mën a jub mel ni ñoom ku yiw mel ni ñoom ku ma nungoo jaamu doo wàcc yoon mel ñoom koo xam nu nga muñ mel ni ñoom koo xam doo toppante doo xeex doo xuloo da nga yoon yu ma la teg kenn du la ko wàcculoo ma boole la ci gaa yi ni ko jëlal leetar bi dem jox ko sa sa xeet wi ku jëf ni ñu jëfé ma defal la ni ko doon jëfé borom be ko wax tek na ci lu bari nak waaye saro ar jot na ah kon nañ fexé ba roy gaa yi lettre bi la sëñ xarim jang ubbe ko ni nañ ko waxtane pour ñu def leen ay référence dara gënuma ci neex lu décor décoration bi leen suñu borom décorel bopam ba paré fop décoration bu publier ko ci facebook am moom suñu borom dégg ko jox ko yonente bi sala ne ko yobale ko def ko ci sa facebook yow tamit ku lire nako ci fek xam not rek la ko la ko la ko anglais yi di wax wax kay defal mako non ba legi nak seigne touba neena suma fek suma jidon alcorane ma jiitoon seen tur fi ñu leen roof daañu ma fi roof kon nak ku gor lu ci ñun ñii tamit yalla man la yobu fi yalla yàlla nañ fa yalla tek tek fa bolem julit bi jay sayidna muhammad rasul alayhi salatu wasalam maa ngi balu ñu ak ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yàlla boole nu baal bi jaay siinam alayhi salaam allahumma inna nasaluka min kulli hamin farjan wa min kulli dixin maxraja wa min kulli husrin yusran wa min kulli faisatin sirra wa ala kulli xayrin sabila bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin